internet yi dalee nag jàmm ñëw ak ci xibaar jëm ci wàllu làmb bokk na ca diggante Gris ak kii di Ama Baldé waaye aussi diggante Eumeu Sène ak ki nga xamante ni moo di Balla Gaye numéro 2 moom Eumeu Sène nag wala sax ñu jëkkee ci Gris ak di Ama Baldé moom ki di Ama Baldé moom nag jàppale ne seen làmb ja waroon am le février bi la ñu dëg la fomm la ko waral nag may blessure Ama Baldé ay quelques jours rek avant làmb ja loolee mu ngay woy di naqari kii di Gris préjudice te jàpp na ne jamono jili li nga xam ne nag am na muy kii di Ama Baldé ba ñu defaatee sax contre expertise ci CNG ñu daal di koy rëkkale joxaat ko ci lu ci 15 jours ngir mu dalluwaat ko ndax ne nañu wéragut ñoo xam nag fan la wanati di mujjee ki gëtëm moom mel di Gris Bordeaux nag jàpp na ne kii di Ama Baldé kii ndax fi ñu toll nii fa mu teg euh, du dara du dut li nga xamante ni moo di combat bi dox ci digganteem ak Modou Lo moom nee na Gris Bordeaux nag jàpp na ne di Ama Baldé fi ñu toll nii bu waroon a tànn diggante moom Gris Bordeaux ak kii di Modou Lo di Modou Lo lay tànn ndax fi ñu toll moom Ama la mu tëggat du dara lu dul couronne roi des arènes ba nga xam ne ca Modou Lo la nekk donte la sax moom Ama Baldé joxe na li nga xam ne moo di avalam ndax ki la di Modou Lo mën a bëreek Boy Niang ba ba daal di taxaw jàppale nag moom Gris Bordeaux mbir ma naqari na ko lool fi mu toll sax la muy wax mooy nag jéem ko libéré ngir moo mën a am beneen combat parce que jàpp na ne ki di Ama nekk nu muy jéem toxalee combat bi nu mel rek ba mën a jongante ak ki la Lo lay wër diggante Eumeu Sène ak ki nga xam ne moo di Balla Gaye numéro 2 moom Eumeu Sène ak adversaire bu Balla Gaye numéro 2 30 juillet bi ñu dëgmal sax yëkkati na ay kàddu jëmale ko ci seen combat bi nga xam ne moom la ñuy tuddee acte 3 ci duel bi xam ne war dox ci digganteem ak kii di Lion bu Guédiawaye moom amul seen jógee bu yàggul dara ay fan ay semaine sax fa li nga xamante ni moo di ca Màkka nag jëlaat na yoon wa ngir dooraat la di ay entraînement am jëm ci wàccaayu lambu joro dox digganteem ak Balla Gaye 2 le juillet bi ñu dëgmal moom nag boobu mooy nekk ñetteel bu yoon ñaari mbër yile daal di daje ba ca daaloon di njëkk a laale ñoom ñaari mbër yi di Eumeu Sène am ca ndam naka noonu aussi ñaareel ndamam le avril 2015 moom Eumeu Sène nag gannaaw ñaari ndamam ñu am ci kaw Balla Gaye numéro 2 taxul benn yoon sax mu xam ne nag ki nga xam ne moo di Balla Gaye 2 bu nga xam ne seen ñetteelu combat wala mu gën a nekk lamb ñuy ki mu ni moo di Balla Gaye numéro 2 moom nag nee na mu ngi préparé bu baax lamb jooje nga xam ne ñu ngi koy diggante Eumeu ak ki moo di Balla Gaye numéro 2 moom nag nee na di Balla Gaye numéro 2 ab champion bu mag mag la te jeune la te dafa ko sax di liggéey nga ndax moom mi ne dese na ko ay at ci kanamam fii la ci arène nationale bu Sénégal moom nag Eumeu Sène kàddu yi daal la mën a wax ci ki nga xamante ni di Balla Gaye def na ko ci ci Sénégal di kàddu numéro 2 nekk adversaire seen lamb ñu koy xaar ci le 30 juillet ci arène nationale lu ci mënta xew rek moom ñu dem seen daan nee na mu ngi waajal bu baax a baax lamb ju ni mel eh, daan ñaari Balla Gaye ñaari yoon eh, taxul mu yëg boppam benn yoon ndax kii di Balla Gaye numéro 2 nag akub champion la eh, képp ki waree a bëre moom des ko waajal bu baax a baax lu ci mënta xew moom mi Eumeu Sène am na ñaari ndam ci kaw Balla Gaye numéro 2 2009 ak bañ bari jàpp sax mooy benn waaru ak kii di Balla Gaye numéro 2 Balla Gaye moom ndax mu jugee ci défaite digganteem ak ki nga xamante ni moo a la nga xam ne nag moo di Eumeu Sène tey chinga waaye nag Balla Gaye numéro 2 mooy le lion de Guédiawaye ku ne Balla Gaye numéro 2 wala ku tudd lamb da nga tudd kii di Balla Gaye numéro 2 donte le nag gis nañ ne génnam yi mujjee xaw naa métti loolu ci moom waaye loolu nag yëngalut benn yoon ki nga xamante ni moo di Eumeu Sène ndax nee na

nee na Balla Gaye numéro la loolu lu ko neex ci moom la te mbër mu mu respecté la lu ci mën a xaw xam fan la wanente di mujjekk gëttam le 30 juillet bi la ñu dëg diggante ak yeneen xibaar waaye laata des fois mënta nekk ñu ngi lay jaajëfal weleen di like weleen di abonné ci seen seen Nettali Info ngir xibaar jëm ci